li ñu gisee bon lu dogal yàlla kenn mënu ci dara bu dul loolu on s'attendait pas à coup d'état pour le moment xalaatu ñu coup d'état ñi ci fan yi parce que moment bu ñu tool li kenn soxol coup d'état feebar am na ci boobu loolu doy na doy na waaru boo ko boolee ak yeneen crise vraiment dafa waaru waaw. bon fu mu toll nii actuellement comme ils ont for gars yi forcé nañ président mu démissionné président démissionné na euh, déchu assemblée déchu euh, euh, kii comment dirais-je wa gouvernement. bon loolu moo indi jàmm tuuti li ñu mën a wax parce que boobu bu nangul boo boo boo tey léegi tolof tolof la mais comme moom nangu na wàññi eh, nangu na wàcce. léegi ñi ñaan yàlla comme IBK baaxul ATT baaxul kan moo baax ci Mali léegi Mali boo amee problème pays frontaliers yëpp am nañ problème parce que am na sénégalais ñu nekk Mali am na maliens ñu nekk fii c'est comme ça loolu la chaque fois coup d'état pourquoi benn Mali su fekkee su fekkee coup d'état mënu ci ñàkk Mali est-ce que du ñu bàyyi démocratie à côté d'abord au Mali ngeen baal ci terme boobu parce que démocratie dafa ñëw pour bañi euh, tur dere ou bien pour bañi coo mais fekkee coow Mali euh, ñi nekk régime militaire def na 23 ans musul am mutinerie musul am coow boobu bu mu demee ATT ñëw jox ko pouvoir ci civil dem 10 ans boobu kese la ñuy def mais après boobu ku ñëw mu demal demal demal. li ma gisee ci problème Mali problème intérêt personnel la il faut ñu tekki intérêt personnel fele di xool eh, intérêt public. lan mooy problème balaa nga am sa place yow da ngay sàcce ñëw pouvoir bon ñii nekk sa entourage yëpp ñëpp xam nañ naka nga ñëw ci eh, réew mi bon léegi yow boo wax bu leen def lii dana wax hmm, attention de yaa ñu def lii loolu mooy yàq Mali il faut ñu bàyyi corruption. li xew Mali su fekk loolu nga may laajte. du sunu du sunu bëgg-bëgg daal démission bi fu mu nekk ni dëgg yàlla arrangé ñu si sama sakku na jëri deux ans deux ans bu desoon mu defu loolu mu jug ñu def élection mu dem moo moo moo ma a arrangé daal. yàlla fu mu nekk moom yëpp ñu ngi xalaat kenn xamul lu war a doon foofu démb depuis suba moo ngoon ku nekk ñaa ngi wax ñaa ngi woo sa bokk du laajte xam la loolu du jàmm. su fekkee jàmm moo moo am foofu kenn du woote loolu moo tax démb ba tey yëpp téete na moom dëgg yàlla. mu nekkee nii parce que dëkk bi dafa jaxasu kenn xamoon fu mu doon ne xanaa nakaree rek doom nakar nañu torop waaye mun leen ci dara xam nga yëf bu commencé rek ba doole ñoo ci gën a sonn waaw noonu la sinon nakar nañu de eh du jekk du jekk moom parce que sunu buntu kër sax moo jàkkaarloo camp bi sunu buntu kër. moo jàkkaarloo camp militaire bi. dañuy tëju dañuy tëju tëju nañu yàgg na sax ku génnee rek am nga soxola bu jàmpe nga door a génn bu fekkee du noonu kenn du génn kenn du génn sunu kër kenn du dugg waaw métti na de métti na torop sax boo demee liggéey sax boo guddee da ngay xool fi ngay jege ba ci yow nga fanaan bo foofu parce que buntu buntu boo jàkkaarloo ci camp bi neexul neexul. waaw noonu la. li ma gis moom dëgg yàlla moo xaw naa doy waar mais yàlla na def jàmm comme Mali ak Sénégal benn la kenn mënu leen tekkaliku donc yàlla na def jàmm Mali donc vraiment ñu delloo seen xel def ci jàmm comme dañoo am beneen problème boo xamante boobu pareegul feebar bi tamit am na boobu tamit mi ngi ci léegi balaa ñu yëngaloo yëngatuwaat beneen problème tamit vraiment nañ ci seetaat seen biir ñu toog waxtaan ñu xool ku mën ñu fal ko ñu ñu ñu uti daal moo gën. j'ai lancé un appel solennel à la communauté internationale à ñëpp ñi mën a wax ci dara pour lii mën a jeex na jeex parce que chaque fois coup d'état chaque fois coup d'état na yem bu yemul ah fekkee kenn du dem Mali ñun ñuy nekk fii dañu nekk fii par force sénégalais dañ leen yëg seen euh, seen seen bagage loolu baaxul. bon frontière yi li ma dégg bu defee su amee tolof tolof la. waaw ah, dana am jafe-jafe waaw parce que fu mu toll ni yooyu jaayeen ka ci nekk fii su fekkee marchandise yi xam na du la arrangé moo bu baax sax depuis confinement sax ba léegi marchandise bi ñëwul comme ñeneen i at yi waaw tuuti tuuti moo ci duggee rek waaye nu mu dugg tamit dafa seer na seer na de sono nañu gis nga marché bi ni mu mel. amul sa client. sama mbokk malien yi nañ def très très très attention parce que xeex bu ndaw amul saafara bu ndaw amul su ngeen xool loolu ñaar yooyu da ngay xam kañ lay commencé mais xamoo fan lay jeex nañu xool yeneen yi réew mi lu dal seen lu dal ñoom ñi bañ ñi dal ñu. parce que somme sommes des pays frontières Mali Guinée Sénégal Côte d'Ivoire Burkina boo jege fi tey da ngay dem Mali suba boo jege fii da ngay dem Guinée bu problème amee suñu diggante rek djihadiste c'est fini ça sera euh, une une balle du su boobaa dañ li ñuy toolu tey da ngay lekk kenn du la laaj dara mais suba ceeb saako danañ laaj Mali soixante et cent mille francs parce que bato moo ko yóbbu ba camion moo ko yóbbu boo bu frontière te di naka la mën a am loolu laa mën a wax sama mbokk yi nañu def attention ñuy xaar bu ñuy fal président lu ko defe lu métti métti métti nañu xaar bu bu wàccee rek ñu jàpp loxo yi ah président li nga def compte rendu mais suñu def loolu même suba bu bu ñuy éli beneen président loolu lay dem su loolu communauté internationale la jël seen place mu signé dee il y a plus de coup d'état que qu'en soit alpha ou bien Mali n'est pas prêt pour la démocratie, laissez le pouvoir aux, aux, aux militaires. Voilà. lii lañ leen jëlalee woon fi nga xamante ne moo di marché malien bi nekk fii ci Centenaire ñu ñëwoon di waxtaan ak ñoom ci naka lañu gisee situation bi nga xamante ne moo nekk fële ci seen dëkk ba mu di Mali dégg nga nag li ressortissants maliens yi wax ku ci nekk wax nga sa xalaat ku ci nekk wax nga li nga xamante ne loolu nga yaakaar bu ñu ko defee situation am jàmm am fële nga xamante moo di Mali c'était tout ni lañ leen jëlalee woon foofu bu leen fàtte di abonné wu toujours ci Medina TV HD ngeen di bës cloche notification bi ngeen di nekk ñuy jëkk jot suñuy vidéo prochainement toujours sur euh, Medina TV incha incha allah.